information dafa am solo surtout di xaar ba ñu dal ba noppi ba yépp dal ñu waxtaan ñu waxtaan ak askan euh, defe naa ne talaata la woon bii ñu génn euh, ci booru cinq heures quarante six ndax it booy joxe information da koy joxe ba mu mat su ma conseiller bi toog Basirou yoon daf ma yónnee message SMS ne waaw Euh, dañu laa génne assemblée nationale ma ne ah, loolu day yëgu ko ñu ne tuuti nag information bi commencé kenn ma wax leen na nag ba ba léegi gisagu ma lettre ndax yónnee naa tey assemblée ne leen waaw xanaa su ngeen daq di ngeen ko bind lettre nit boo ko licencié sax xanaa bokk di ko jox lettre bu ñu ko di ko ko notifié ni ñuy waxee ci tubaab jotaguma mais li ma bëgg aussi ñu xam mooy binduma lettre démission du APR APR sax moom mooy seet falu ma woon ndax Benno Bokk Yaakaar ma far parce que nag aussi bu ñu yor dañuy jiital xam-xam APR amuloon liste Benno Bokk Yaakaar moo amoon liste ànd ak ay alliés ñoom it ñu def ci seen doole ñu ci bari na assemblée nationale ci liste bi waaw ñooñu koy xanaa bu dara di am ci ñoom lay jóge bind ma leen newu ma leen dama démissionné ñoom seen bopp sax woowuñu ma mënoon nañ jàpp sax ne waaw diw de a tooñ comme ni ko politicien Ismaïla Madior Fall wax parce que nee na dootul homme de droit ci laa loolu laa dégg léegi affaire politique la jàppoon naa ne nag yoon bu ñu ko nommé ministre de la justice moom ci yoon lay wax waaye moom jot na ko wax ne waaw de toute façon nii ak nii ak nii lañ koy defee waaye xam naa ne na mu leen ko tegtalee defewuñu ko parce que lu mu bañ a bañ a doon politique am na tuuti ci droit loo xam ne dana ko def mënoo dem ne waaw ñun waa APR euh, ñun ñoo ne nañu génne voilà soxna si ah APR amu fa yoon ah, benn bokk yaakaar moo fa am boo doo gis benn député ñu ne député APR donc foofu xam naa ne jotu leen fa expliquer la ñu war a def waaye li ñu def teguñ ko ci yoon teguñ ko ci benn yoon constitution bi dafa am article soixante article 60 nee na ki démissionné ci parteem wala ki démissionné ca la ko yóbbu assemblée nationale kooka mën naa mën na fajo bi waaye ni ma leen ko waxee mënuñoo wane lettre de démission mënuñoo ah démission de fait la ñuy wax waaye fañ ko waxee sax ka ñu yónni pour mu wax ko moom il n'était pas habilité parce que Benno Bokk Yaakaar la waroon a wax donc ñu daal di violer article 60 teguñ ko ci yoon. violer aussi article 7 bu réglement intérieur dañu ne député bu démissionné ci sa parti dañu koy dañu jël prendre prendre acte <laughs> démissionné wu kon nag lii nga xam ne jël nañ ko ci dogal du dara lu jaay doole du leneen ci ku nag ku ko taxawal parce que président Macky Sall nag mënul wax ne taxawlu ndax lu mu sa yor ci politique maa ko jiite depuis 2012 mën naa koo lim di ko lim di ko lim ba ci tête de liste defal la cinq mille cent soixante quinze kilomètres muy taw muy naaj voilà bi ñuy jëngal mbagg yi sax boobu daf ñoo neex parce que ay mélomanes lañu voilà donc euh, mënut ko waaye mel na ni mel na ni su suma présence ci assemblée nationale gis Marine Le Pen mi saaga na ñu ñuul ñi di saaga jullit yi moo ko gënal waaw loolu nag moom foog nu taxaw parce que nag président loo ama ama am doole nag ñu nag ay doomu aadama la te ay goro ngi fi ba tey loo mën ak doole boo mënee am boo bëggee teg nit ñi injustice kenn du ko nangu man de du ma ko nangu ba lu ma ci fekk fekk ma ci moom bu fekkee ne mu ngi déglu xam na nii ma koy wax ne lu ma gëm la ndax dama ànd ak moom ci condition yoo xam ne ku amuloon fit doo ànd ak moom moom xam na ko lii mu def nag ba ñu ko defee ñaari député yi ca ba mu jógee assemblée nationale moom mooy audio bi ma dégloo bi ma bi ma teg déglu ko sànq dafa jël dafa jël micro dem ci presse internationale ne leen lii kenn mus koo gis ci Sénégal wala ci àddina ab parti rek bind bureau de l' assemblée nationale comme su fekkoon ne bureau assemblée nationale moo la fal ne dàq leen lii kenn su ko gis mooy audio bi ma wane noonu sànq ñu yegg si ba tey président nee nga musul am waaye lii mooy deuxième fois mu am fii te ci sa coobare la amee injustice boobu nag dinañu dem voilà ci fanu koy contester waaye nag dinañu taxaw maa ngi gërëm aussi député yi nga xam ne ñoo ne bureau assemblée nationale te wote ko wote lii nga xam ne jaay doole kese la du leneen réew mi nag ci ay sart la tegu teguwul nag ci doole ndax bu doon doole rek président Macky Sall du fi nekk ñoom ñëpp maa ngi leen di sant ñi nga xam ne dañu bañ te duñu ko wote waaw di sant aussi leader politique yu bari nga xam ne dégg naa aussi seen intervention te yoon rek tax ñuy wax ba ci association femmes yi nga xam ne société civile def nañu aussi seen déclaration ñun ñoom ñépp ñu ngi leen di sant bu baax danaa ni ma ko waxee fexe ba dem fi yoon ndax dafa am solo aussi mais lii li mu firnde benn rek ci pàcc la ne président Macky Sall démocratie ak droit soxalatu ko loolu nag lu grave la ndax moom président Macky te ñu fekkee ko nag ndax bi ñuy ànd ak moom candidat Macky Sall bu fekkoon ne lii nga xam ne noonu lay bëgg a doxale ak ñi d'accordul ak moom bu fekkoon ne président Ablaye Wade noonu la doxalee ak moom ca ba mu créé parteem ba mu ñëw ba ci élection kon heure bi du ko fekk ci bopp réew kon du am moom dañu ko convoqué commissariat ne dafa luubal 7 milliards président Abdoulaye Wade bu toppoon loolu tey du président de république kon président dellool naar bi xoromam président da nga war a sigil démocratie sénégalaise démocratie sénégalaise moo la bàyyi ci bopp réew mi sénégalais yi wàccoog yow nag wàccoog yow waaye dafa amoon am dafa waroon app am app muy février deux mille vingt quatre fii nag li fi am ba des mooy ñi nga xam ne dañu tuddee seen bopp démocrate ñi gëm démocratie te àddina nag ci démocratie lay doxe ñoom ñëpp nañu xam ne président Macky Sall doole la fi bugg a toogee. képp koo xam ne taxaw nga ci yoonu troisième mandat bii muy wër dina la fexeel dina la traqué lu ne dana ko def ak commencé nag fa ñu nekk ci coalition moom foofa lay tàmbalee ku ci génn ne d'accord uma seet na muy jëflanteeg yow waaye gëm naa ne foofu ay goro nga fa ba démocrate yi ak politiciens yi nga xam ne gëm nañu ne justice dafa am solo gëm nañu ne jaay doole du noonu la ñuy doxale réew nañu war a dañu war a ànd taxaw ci plateforme du ñu seet kii ban ambition la am wala kële ban ambition la am kooku après la ndax démocratie bu amul ambition du am ndax nag lii ñu fi gis président moom kenn bëgg a doon candidat loolu it kenn musu ko gis président ba ngay dem élection mais treize candidats ngeen doon Ablaye Wade bu fekkoon ne bu boobaa da doon tànn naan kii bëgguma ko day dama koy utal dossier kii bëgguma ko dama koy utal dossier kon day topp 7 milliards yam la doon toppee kon doo nekk candidat kon doo nekk président de la république kon président da nga war a fay naar bi xoromam delloo njukkal sénégalais yi delloo njukkal démocratie bu Sénégal li nga xam ne nag moom la ñuy xaar yow doon ko xaar waaye bëriwuñ ci yaakaar mooy nga dajale askanu Sénégal yëpp waasowu Sénégal yëpp dajale tarixa yëpp dajale église dajale mag ndaw borom kër travailleur képp ku munti doon ne leen ah man day damay dem février lay pare nanu toog waxtaan nu nuy gën a dëgëralee sunu démocratie te doo ci beddi kenn doo beddi compte kenn bu ko defee kay ñëw di la wuutu te kooku nag sénégalais yi doom nga koy choisir ak suñu borom ndax nag yàlla nee na ci ñu dégg bu baax a baax ñoom mbar bi ñi <laughs> mooy jox mooy jox nguur nag ku ko sóob jaarale ko nag ci électeurs yi fi ñu toll nag comme man li ma jàpp mooy loolu intéressé wul président Macky Sall li ko intéressé mooy jaay doole dana ko jaay ku ne nag ku ne dana la ko jaay ni mu ma ko jaayee man mii di xaar nag lu nekk ci moom dara mënumaa bett waaye na xam nit da ngay am sa conviction di ci woon ak démocrate yëpp sénégalais yëpp mag ndaw jigéen xale travailleur borom kër pour ñu ànd doon benn say benn say pour défendre suñu démocratie bi comme ambition dinañu ko xool loolu amul problème parce que ba ñuy moom ba muy dem nekk candidat treize ni ma ko waxee treize candidats la kon loolu du problème waaye ñi nga xam ne dañu war a taxawal démocratie nañu ànd nanu waxtaan ñu def benn say